monsieur Adams Tidjani na nga def ñu ngi lay dalal. maa ngi leen di fay. ñuy fàttali ne environnementaliste nga nga ñëw tey mi FM pour wax ci entrée en vigueur interdiction sachet plastique yi fii ci Sénégal loi bi ñu gën ko xam ci euh, prévention ak réduction incidence yi environnement des produits plastiques bi nga xam ne le 20 bi la entrée en vigueur nan nga jàngatee déjà loi bi. waaw loi bi euh, yaakaar naa ni ñëpp a ngi koy rafetlu. ñëpp a koy rafetlu parce que ñëpp gis na ni jàng euh, plastique jàngoro yu muy indi si dëkk bi mm-hmm. maanaam tey jii foo romb sachet plastique si si gox goxaan yi yaa foo yaa gis sachet plastique mm-hmm. dafay indi lu ne wooye polition visuelle maanaam boo ko gisee vraiment da nga koy seexlu mm-hmm. ginnaaw loolu euh, plastique bi boo xam ne ne mu ngi si jaww bi léeg-léeg nga gis mala yi di ko lekk fat buñ koy lekk day empêcher ndox bi di dugg si suuf si te loolu boo amee booy ji sa ay gerte wala sa leneen doo doo am production agricole bu baax mm-hmm. donc yooyu yëpp ñu ngi koy ñaawlu léegi tey ji ministère bi nee na dafa bëgg a interdire plastique mm-hmm. kooku baax na mais ñun ñu yaakaar ne euh, euh, approche bi maanaam boolewu si ñëpp parce que bu si boole woon ñëpp yaakaar na ne lu mun def lu baax. Mm-hmm. parce que affaire bi du question ñun bu doon suñu sago lu ñuy def ci environnement bu buñ ko defee ñun ñëpp ñu réussir mais xam nga pour mu am réussite il faut nga boole si ñëpp parce que loi sur le plastique bi nu mu tëddee tey mooy loi bu nga xam ne boo deful li naa la teg daan boo deful li naa la teg daan non en matière d'environnement waroo xalaat noonu nit ki da nga ko war sensibiliser conscientiser ko mu ne ah lii lu nu bëgg a def mm-hmm. am na solo ànd naa léegi naka laa si mun jàppee wala pour mu nekk une réussite bu boobaa on a une approche qu'on appelle participative wala inclusive mm-hmm. bu boobaa nit ku nekk bu duggee di xeex plastique def koy def ak fayda ak ful ak fayda xam ne nu mu war a jur tey pour sunu pour pour sunu environnement mais boo tegee ay loi yu nga xam ne ne mm-hmm. euh, da nga teg ay sanction ginnaaw kii bi boo deful li ma teg la sanction loolu nit nit nangu ko yow da ngay seetu sa bopp sax tey jii buñ la waxee defal li par force doo ko def mais loo xam ne li yaa ngi koy def parce que sa coobare la kooku amoo si benn problème. mbaa da ngaa foog ne dañ koo àjji te ñoragul. ah wante bu bu bu ñoree tamit lu lu lu lu na de. <laughs> tey ñuy wax ne dañ leen waroon dañoo waroon inclure euh, donc acteurs yëpp euh, dañ koo mhm. def si yàqamti wala. ah man je pense que ministère bi dafa am benn agenda am est-ce que agenda bi méngoo na ak justement acteurs yi parce que xam nga droit bu mel nii. Mhm. boo gisee conséquence socio-économiques yi mu mun jur. Mhm. maanaam ñoo xam ne dañ leen ñàkk seen liggéey. nga xam ne na ñu ngi doon tedd di di toppatoo seen seen njaboot. tey jii nga jékki-jékki. Eh, nga arrêté sachet plastique yi amatuñu liggéey. Mhm. xam nga déjà kooku balaa nga def loi bi da nga war a xalaat noonu mhm. ñii di ñàkk seen liggéey mhm. naka laa leen mën a recycler si beneen système boo xam ne ne dañu am loo xam ne ne dañu gis seen bopp. mooy benn am na ñoo xam ne ne tey leen seen kër def prêt bancaire pour def ay unité de production de sachet en eau ñooñu tey jii boo arrêté sachet eau fuñ jëm bu nu waxtaanee nag ñoom si si si si début bi mm-hmm. xool nu leen mën a gunge naka nu mën a def ba nga xam ne ne même bu nu naree continuer am sachet eau mm-hmm. wala naka sachet eau yi nu mun ko transformer en de petite bouteille en eau mm-hmm. loolu yëpp c'est rôle du ministère moo war accompagner acteurs yi donc ñun ñëpp ñu waxtaan si ne ah ren jii lii na nu mun def lii mooy nekk suñu objectif. ndànk-ndànk déwén mu nekk lële mu nekk li mais doo jékki-jékki rek jël benn loi ne nii la nii la donc par la force par la contrainte dama ragal ni dina am problème jamono ji loi bi di entrer en vigueur sax am na lu mu fi fekk muy coronavirus bi ba tax na am na lu mu soppi lu néew ci li nga xam ne mooy loi bi nee nañu entrer en vigueur bu loi bi nga xam ne day mettre activité euh, yi di sachet plastique yi maanaam yi ñuy jaayee ndox dañ koy dàq ba mhm. covid bi jeex euh, tey mhm. jii ndax loolu tamit waroon na tamit pertinence am nan nga ko gisee bon man je pas tellement de euh, so soit ministre bi lu mu doon wax mhm. il applique la loi dans son intégrité mhm. mu xoolaat gëstuwaat xam na ne mu bëggoon def si loi bi euh, euh, vraiment amul accord toutes les parties daal luñ làq li nga xam ne waxuñu ko ñu jël Covid bi def ko prétexte. Ah, je pense que Covid bi mën na nekk prétexte pour ministre bi reculer parce que tey jii nañu waxante dëgg soxna si. Mhm. boo jëlee tey Kaolack ay Touba. sachet ndox bu mu amee la la ñooñu di commencé di naan ndox mu baax c'est ce que ma la ministre bi la fonction sociale du sachet d'eau c'est extrêmement important sachet d'eau boo xam ne mu ngi jaar vingt cinq francs tey ji boo indiwoon bouteille ndox bouteille ndox bu jaar cent francs cent cinquante est-ce que ñëpp ko mën jënd loolu yëpp da nga xalaat l'accessibilité de la chose donc léegi comme lu ma la ko continuer ñoo xam ne ne tey jii ñu ngi ñàkk seen liggéey si jaay mbuusu plastique ñu mhm. mun leen jël yobu len dans le recyclage de sachets d'eau ce qui fait que aujourd'hui on gagnera on fera d'une pierre deux coups kenn du ñàkk liggéeyam ñëpp gis si seen bopp dëkk bi naat amul benn problème. tey jii conséquences yi njeexital yi sachet plastique yi am ci environnement bi moy yan la. wax naa ko si njëlbeen nee naa la d'abord pollution visuelle. Mhm. boo duggee si benn gox nga gis sachet plastique entrée de village yi da ngay ne ah ñii kat da ngay jëkk wax ne mooy ñii doon salte parce que mu ngi si fépp un peu partout euh, mala yi di ko lekk si suuf si parce que mala yi bu ñu dajee moom léeg-léeg souvent si plastique yi nga gis ay ñam desetu ñam ñoom bu ñuy lekk desetu ñam bi nag pour ñu ràññee desetu ñam bi ak plastique bo foo xam ne desetu ñam mu ngi si day metti donc dañuy lakkaale plastique bi te bu ñuy lekkee plastique du ñuy lor seen bopp dañuy boo plastique bi bu nekkee aussi si si géej bi am na mbonaat yoo xam ne buñ ko lekkee ñoom ñu ngi koy jaawale ak ay méduse mhm. ñu lekk ko dañuy fatt ñoom tam donc day aussi empêcher ndox bi di dugg si biir suuf si parce que boo tegee plastique si kaw euh, si benn champ bu ndox ñëwee du dugg mhm. donc boo jiwee ay gerte wala euh, dugub xam kooku mënoo fa mënoo mënoo fa jëlee dara mhm. donc loolu yëpp def na que plastique bi vraiment euh, mbuusu plastique. mu ngi poser problème. Mm-hmm. léegi solution bi duñ ko tere mais mënoon nañu xalaat autrement ne naka laa mën a def mbuusu plastique yi ma transformé ko tey jii lu ma doon wax ministre bi mm-hmm. dëkk bi tey jii salte na ay mbuusu plastique la waaw mais mbuusu nekk si biti actuellement mm-hmm. est-ce que gouvernement bi xalaat na ne ah balaa may jël loi bi xaaral ma set setal si gox yooyu yëpp plastique bu nekk si gox yëpp ma ramassé ko. xam lu si siy def et cetera donc loolu mooy action bu njëkk nettoyer léegi mënoon nañu nettoyer jël ay matuwaay yu bees par rapport à la gestion des sachets plastiques dans nos pays il des solutions il des solutions uh-huh. ndax am ngeen yaakaar ne loi bi euh, dinañ ko topp ba mu sës ndax du guléet ñuy dégg loi bi xanaa dañ koo xoolaat rek mais ndax yaakaar mën naa am tey ne dinañ ko toog ba mu sës. bon affaire bi c'est question de rapport de force ministre bu buggee loolu wante bu gisee ni tey jii bu si degré dina indi des pertes d'emploi des milliers de personnes. Mm-hmm. dina indi une instabilité au niveau du pays et cetera xam nga kooku <laughs> action bu mu bëggoon def objectif Euh, méngoowul ak lu luy population yi di dund. Mhm. kooku ce n'est pas productif boo defee benn loi c'est vrai yaa ngi sauver environnement bi mais comme je dis toujours sauver environnement bi c'est une chose mais ñu dëkk ci biir environnement maanaam nit ñi. Mhm. je pense que ñoom nga war a jëkk a sauver balaa nga xalaat sauver environnement bi lool tax kooku moom la wax ni il faut que ñu xalaat loi bi xool ñu ngi koy tënkee ba ñëpp gis ci seen bopp. tey jii coronavirus bi am na li nga xam ne mooy côté euh, bu ñu nemmeeku mën naa wax sax ne côté positif si wàllu environnement bi parce que émission dioxyde de carbone gis nañ ne dafa wàññeeku. ban mhm. jàngat nga ci def. waaw lii mooy wane ni pollution de l'air bu ñuy gis bu ñu am si dëkk si dëkk yëpp mhm. dans le monde entier activité humaine bi moo koy def ce qu'on appelle action anthropique mhm. tey jii sunu action sunu dawul oto sunu euh, entreprise yi ñooy tax ba air bi di dégradé mhm. depuis bu yëpp taxawee ñëpp gis nañu ni environnement bi dellu na place am dellu na place am euh, ndox yi set nañu pollution de l'air bi wàññeeku na et cetera et cetera loolu tax dañu war a après pour man dañu war a commencer mën réflexion bi mais est-ce que après coronavirus bi mhm. waruñu xool xoolaat suñu doxalin est-ce que war nañu continuer di polluer comme on pollue mhm. donc cest dire moom lay wax toujours il faut réconcilier l'environnement avec l'économie war na nu mën a développer de manière durable mhm. bañ a yàq environnement bi parce que suñu doom yi suñu sët bu ñu ñëwee suba ñu fekk fi dara te loolu ñu ñoo ko war a sa ko ñoo war teg léegi ay ay ay matuwaay mhm. pour que suba bu ñu ñëwee fekk fi environnement boo xam ne dina neex si ñoom. professeur économie verte euh, fii ci Sénégal ñu gis ne hmm. ay projet euh, ñu ngi ci jëm. tey jii hmm. enjeu yi ak perspective yi bu dee Sénégal dëggu na ci taxaw na ci. bon xam nga économie verte c'est c'est c'est euh, le bu gën a am solo mooy économie boo xam ne c'est basé sur les déchets. Hmm. c'est basé sur le recyclage. moom lay wax ni xam nga boo jëlee par exemple plastique. man mii di wax ak yow boo demee université de Dakar. booru ginnaaw rectorat mhm. am na xale yi fu ñuy jàngee ay na ay plots de différentes couleurs ñu mhm. ñoo ko tabax ay ay ay pneu plastique nañ jël mhm. si bën biir pneu yi di dugal si ay ay déchets plastiques foofu recycler nañu trois mille six cent pneus quatre mètres cubes de déchets plastiques pour wane ne que le recyclage du plastique est possible mais on peut donc créer une économie circulaire bu mënoon def loolu à l'époque xale yi maa ngi doon fay quatre vingt mille francs bu nu ma indile camion pneu boo ma indilee mbuusu saaku ceeb bu fees ak plastique mhm. ma fay la mille francs xale yi gis ci seen bopp dina ma professeur li ñaata ki nga pën ñu dem uti ko mhm. xam nga ñooñu ñu ngi si gis seen bopp mhm. loolu mooy économie circulaire te loolu war nañ ko mën a def si dëkk bi suñu déchets yi déchets yi ñuy toog di sànni yu si bëri mën nañ ko recycler tey jii ñu ngi set setal collecter ay déchets bu ñu collecté déchets yi mën na leen waa léegi qu'est-ce que vous faites de ces déchets xamuñu si def parce qu'on n'a pas créé des filières de valorisation des déchets bu ñu ko créé wul lu ñuy def ni <laughs> amul benn njëriñ. il faut d'abord ñu créer en en je, je dirais en amont des filières de valorisation. Mm-hmm. nga xam ne bu ñu amee déchet muy weñ muy plastique muy desetu ñam xam nañu fu ñu koy dugal. à ce moment, on va merci beaucoup. Je vous may fàttali ne yaa doonoon suñu gan ci matinalu Rewmi FM tey ji